mu dul jeex la am saa su ne dañu ak yéen ci leeru jamono léegi-léegi ñu daal di jukk ak yéen ci ñaareelu pàcc bu seen magasin bi di l'édition du soir tey nag sunu gan euh, Mame Birame Wathie la moom mooy administrateur bu euh, site bi la di euh, walfnet.com Mame Birame maa ngi lay nuyu Aïcha Diakhaté <laughs> di dalalaat bu baax a baax fi nga ci kër gi hmm, voilà duñu ci benn yoon ci waxtaan wi ñu ngi fi ak Assane Gueye maa ngi lay nuyu Aïcha di nuyu euh, Mame Birame Wathie ak mbokk yi seetaan. Euh, tey fii du net fan la ñu fas yéene génn. si ISCHA la ñuy waxtaanee muy euh, institution Sainte Jeanne ak voile bi nga xamante ne wala foulard laay wax bi ñu génne ne moom la xale yi war a muuroo si at waaye nag si at rek la yem na coow ah, jukki waaye da ngay dese nag ñoom ñu daal di euh, waxtaan ak ki nga xam ne moo di Mame Birame Wathie ñu fas yéene wax euh, lépp lu jëm ci actualité ayu bés yi ñu nekk li ci gën a fës bokk na ci daanaka histoire générale Sénégal bi nga xam ne jamono jii ñu ngi koy bind ñu na cee génn yow naka nga koy analyser jamono jile. waaw wax nga dëgg gannaaw bu ma nuyoo téléspectateurs yi seetaan nuyu euh, Assane euh, par rapport ak euh, question bi je pense que man bokk naa si ñu nga xamante ne nii bu président Macky Sall jëlee décision ne dañuy ko créer comité boobu jiital le professeur Iba Der Thiam bokkoon naa si ñu émettroon ay réserve Euh, parce que quelque part dama jàppoon ne professeur Iba Der Thiam même si am na xam-xam bi ñëpp xamee nañ ko véritablement xam-xam bu leer et cetera et cetera man dama jàppoon ne moom dafa taxaw taxawaay bu nga xamante ni ci wàllu politique permettre ko de point de vue mu def histoire boo xamante ni du jur benn coow. maanaam objectivité moo ko manqué man ci li ma jàpp te loolu parcours politique am moo ko wane donc bu ñu ko jiitalee ma ne man. ci laa bindoon benn chronique sax ma ne lii xeeñ neexul ci euh, ginnaaw gi yàggul dara ci la ñu génnee les premiers tomes mu amoon fi ba tamit benn coow bu am parce que le président Macky Sall moo fi def intervention di expliquer ne colonisation lu baaxul la ci africain yi ci benn wàll wax fi ba wax fi waxu désert yoo xamante ne nii Afrique euh, dañ ko naan jox les tirailleurs sénégalais donc wax jooju juróom fi coow lu rëy rëy rëy ba ñu bëri kontaane ko de la même des frontières sénégalaises parce que dañu jàpp ne euh, le président Macky Sall lu mu def noonu c' est comme le Senghor waxoon rek ma la colonisation est un mal nécessaire. ñi mm. ñi ñaxtu ko léegi le professeur Iba Der Thiam def benn sortie mu ne li Macky Sall président Macky Sall wax c' est pas grave justifier ko justifier ko justifier ko mu bindaat ma ni lii beneen exemple la buy wane ne le professeur Iba Der Thiam n' objectif te bu bindee histoire du Sénégal wala mu jiite. groupe bi koy bind mun na am ay tolof tolof. donc bu li xewee. ci ci tolof tolof yooyu sax la ñuy la ñuy wax ndax dem na euh, ba ci dugg ci këru diine yeeg yooyu noonu bu nekkente ne dem na ba mbir mi wëlee ñaay wala jéggi dayoo est-ce que du euh, yëngal tuuti cohésion sociale bi nga xam ne Sénégal mës na ko yàgg na ko am. waaw moom kay déjà commencé na parce que boo déggee ñenn ñi def ay sorti mais reconnaître ñu diw comme étant sunu maître. mu loolu déjà am na benn euh, crise bu mu créé ci ci diggante nit ñi te toujours euh, par rapport histoire générale boobu man lu ma jàpp mooy euh, au la même de la personne du professeur Iba Der am man dama jàpp ne question bu sérieuse de sérieuse sérieuse mu nekk liggéey bu yaatoo yaatoo yaatoo boo xamante nii kenn mënu koo def ci ñoom at yi ñu ko def nii pour man loolu dafa néew trop trop trop te démb dama ciy waxtaan ak sama benn xarit mu may interpellé si ñoom seen référence yi mu ne ma est-ce que lire nga référence yi. Mm-hmm. ma ne ko bàyyiwuma ci xel. mu ne ma bàyyi ci xel c'est pratiquement lépp ay français la ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko ah loolu de day tax ma loolu damay fàttali li laayeen yi doon wax. Mm-hmm. ñu ne arrestation wu maam Limaamu Laay ni ñu ko relaté ci livre bi maanaam mooy na ko colon ba waxee. Mm-hmm. na ko français yu waxee. donc histoire du Sénégal mënoo koo jël nga ne danga koy bind basé ko ci li colonisateur yi. bàyyi fii. Mhm. parce que ñoom li ñu fi bàyyi mooy loo xamante ni moo leen arrangé damay toog di wax ma ne histoire Sénégal bu ñu ko waxee nu mu demee direct nu mu demee réellement xëy na français yi intérêt yi ñuy am au mhm. Sénégal. Mhm. duñ continuer di ko am. xëy na sénégalais yi dañ leen mere mere boo xamante ne nii kenn du nangooti xëy na jël sa xaalis nga naan ko dugal SGBS wala feneen. ndax da jàpp ne ñii lu ñu def nii vraiment mënatuñu collaborer ak ñoom. quelque part boobu <coughs> na ñu comprendre ñu am ay euh, euh, masla ay waxtaan bindee histoire bi de sorte que. Mhm. yu bëri dañ koy calculer tegee ko nële. waaw ñu ne d'accord mais rek loolu warul mën a tax véritablement. Mhm. ñu remettre en cause ay fondamentaux yoo xamante nii wax dëgg yàlla kenn mënu ko nangu. waaw Assane alors ñaari mbir dama koy jàngat si waxtu yi nga xam ne kàddu yi nga xam ne moom la ma biram wax yëkkati benn bi euh, comité bi wala Iba Der Thiam boppam ni nga ko jàngatee mooy day bind ngir nit waaye bindul ngir askanu Sénégal li nga xam ne moom mooy réécriture histoire bi muy waa ñàkkum objectivité bi mhm. beneen bi dañu am beneen puissance extérieure muy France boo xamante ni imp dugal na loxoom euh, ci mbind bi ba nga xamante ni ni ñu ko war a rëddee ngir mu mhm. leer euh, askan bi mën ko approprié wu mënta nekk tout à fait tout à fait véritablement loolu la ñu jàpp parce que référence mooy yow ci li nga basé wu wala bi ngay bind xool nga loolu pour mën a sourcer say écrit wala pour mën ci sukkandiku pour def léegi nag yow bu nekkee li nga bind yëpp danga koo basé ci li nga xamante ni moom la ñu tubaab yi bàyyil mais kon dama jàpp ne jaratul woon sax ñuy wax rey réécriture de l'histoire moo nañu bàyyi rek li nga xamante ni moo fi nekk ñu continuer di dem ak moom mais bu nekkee dañu nar a bind histoire ñu ne ce sont les sénégalais ñoo ko bind ba pare retracer les comme ni ko tubaab bi ñoom bindee woon loolu je pense que c' est très grave te nit ñi waruñu ko bàyyi. est ce que maam Biram du du euh, li nga xam ne Touba euh, def na ko maanaam euh, jéem a xool fépp foo xamante ne Iba Der Thiam ak ay naataangoom lajj nañ ko fa ci bind bi ñoom aussi ñu bind livre pour wax ne que seen i maam wala fii ak fii fi la jaar. waaw mais xam nga loolu tamit bu ñu ko defee du tax ñu jàpp ne loolu ci histoire Sénégal la bokk parce que le professeur Iba Der Thiam su paree bindam yëpp ba ñu ba ñu tënk ne. lii mooy histoire Sénégal ñoom lu ñu bind noonu peut-être contribution lay doon mais li nga xamante ne nii moom ci la ñuy sukkandiku ne moom mooy histoire Sénégal mooy li nga xamante ne le professeur Iba Der Thiam jox euh, le président Macky Sall ñu officialisé ko maanaam le document officiel l'histoire officialisée mm-hmm. euh, pour man solution bi nekkul ñii jàpp nañ ne lii c'est normal ñu bind man pour man solution bi mooy ñu jël li nga xamante ni le professeur Iba Der Thiam jot na ko bind ñu taal ko ñu reprendre le travail plus sérieusement nekkul ne da ngay mettre en avant des hommes politiques mais ñoo xamante ni te dañoo bëri Sénégal xam nga. Mhm. boo bindee genre histoire yi nga bâclé ko nii joxe résultat yoo xamante ni nii fépp ñu ngi koy kaas tey mel ni Sénégal amul ay borom xam-xam yu fi ne. alors que dañ fay am bari fi fees fi seulement. d' accord Assane euh, informa euh, actualité bi aussi du rek euh, mbirup bindaat taarixu réew mi waaye institution Sainte Jeanne également am na lu fa yees. si la bokk ci politique nga xamante ne judd na fi daanaka mois de mai la tàmbali woon ministre bi génn. wax ñu daal di dellu ginnaaw ren école tijji ñu dàkk ay élèves ba tey dugalaat nañ leen ak fulaar yu ñu leen jox waaye dafa am ay kàddu yoo xamante ne dañuy xaw a jaaxal euh, si jëm si DG bu RTS di Racine Talla muy jëm a def link maanaam euh, def parallélisme li jëm si diggante euh, li xew si ISJA muy institution Sainte Jeanne d'Arc ak li nga xamante ne moom moo xew Touba ban jàng am ci waaw xam nga li ñuy waxtaan ni c'est une question de société. Euh, te question de société ci ma li ma jàpp mooy du lu bees Sénégal. nit ñi yàgg nañu di werante ci question bu ne. je me rappelle même Sidi am na benn livre bu mu bindoon ci affaire u te góor ak jigéen. Mm-hmm. mais ci biir waxtaan boobu ci biir werante boobu dafa am ci loo xamante ne dañ ci déggoo woon. Mm-hmm. au Sénégal euh, su ma bëggee joxe li nga xam ne dañ ci déggoo woon te di ko bañ. Mm-hmm. góor jigéen ci la bokk. su ma jàppee li nga xamante ne nii dañ koo nangu te ñu ñëpp ñu déggoo ko mooy taxawaayu sëriñ si si dëkk bi. mu am loo xamante ni dañu ne ku mu neex def ku mu neex bul def nuyu góor ak jigéen muuru et cetera donc dañu toll si jamono joo xamante ne nii ak les réseaux sociaux gars yi dañuy indil des euh, question nouvelles te yooyu population yi préparé wuñ ci ce qui fait que ay intellectuels de mauvaise fois dañuy jóge fële rek di wax bien vrai que ne c'est un sujet ouvert à tout le monde ku nekk war nga mën a am lu euh, sa xalaat nga wax ko ci mais tamit ça ne doit pas être l'occasion de dire du n'importe quoi parce que euh, dañu ne euh, Assane Diouf dafa dire du n'importe quoi moo tax mu dem rëbës dañu ne euh, nu mu tuddati Adama Gaye dafa dem dafa wax n'importe quoi ñu dem rëbës mm-hmm. donc munuñu tamit comprendre ku mel ne Thierno Racine Talla bind une déclaration parce que man li mu bind sax am na ci loo xamante ni d'accord naa si parce que Sénégal chrétiens yi ak euh, musulmans yi ñoom ñoo ko bokk y a pas loolu d'accord naa ci mais bu demee bay jël exemple di wax yi certaines villes religieuses dañuy adopter des mesures anticonstitutionnelles te kenn waxu si dara je me dis que c'est très parce que dëkk bi nga xamante nii euh, communauté bi nga xamante ni ñoo fi mujjee wax lu mel noonu mais c'est Touba donc bu demee bay comparer Touba ak institution Sainte Jeanne d'Arc di ma di que ne donc il dit ne n'importe quoi d'autant ci biir euh, euh, texam bi même si quelque part maa gis mu naan le Sénégal n'appartient ni aux chrétiens ni aux musulmans <laughs> mais il appartient à qui donc mm-hmm. le Sénégal appartient et aux musulmans et aux chrétiens mm-hmm. c'est loolu mooy tubaab bu correct bi mm-hmm. nest pas mais au-delà au de ça mooy li ma doon euh, wax sànq rek des des intellectuels yoo xamante ni dañu am parce que Thierno Tall man propos yi ma mën a permettre wax moom il n'a pas ce droit la parce que directeur général la c'est un démembrement de l'État donc un démembrement de l'État bu toogee bay wax ne am na si dëkk religieuse yoo xamante ne ni dañ ko fay tere c'est anticonstitutionnel te ñun ñëpp na euh, imposer nañ ñu ko à ñun ñëpp je me dis que c'est très grave te boo matul ça va susciter des réactions d'accord ñu wax la leen ci euh, xibaar ba tey desoon na ci wàllu inondation yi gis nañ ne que ay bés yu weesu moom njiitu réew Macky Sall euh, tegoon na sax ay mesures ndax mesures yooyu ñëwul un peu trop tard waaw c'est le médecin qui arrive après la décès <laughs> donc xam nga ñoom euh, yàggul dara maa ngi fi bind benn chronique ne gouvernement bi nee na mobiliser na cinq milliards pour anticiper les inondations ma ne loolu de c'est une très bonne chose parce mm. que souvent euh, le président Macky Sall li ñu koy reprocher mooy day bàyyi ba coow li euh, taxaw mm-hmm. muy doog a wut solution mais boo xoolee boo xool lañ doon annoncé noonu yëpp je me dis que ni saupoudrage la la réalité est la population yi ñu ngi ci dans le désarroi le plus total léegi rek maa gis ay image images cimetière Pikine yi inondé mhm. donc mu nekk situation boo xamante ni dafa c' est c' te un état qui se respecte qui ne se déresponsabilise pas doit pouvoir anticiper ça mhm. fan la fay am ci mhm. côté boobu noonu fay mooy mooy ci prévention bi déjà ensuite euh, les travaux de la euh, de l'APIX bien sûr ak AGEROUTE tey jii nii créé nañu benn euh, nu mu tuddati fi nga xamante ni ndox mi dafa daan jaar pour génn euh, fatt nañu ko de sorte que tey inondation bi am euh, Rufisque ça ne s'explique pas te te te te te fàttalikuwuma ne fàttalikuwuma temps boo xamante ni les populations rufisquoises étaient aussi désemparées toog di di di cas. donc les grands travaux de l'État ñoom ñoo indi jafe-jafe yi kenn fajuñ dara. tout à fait wala très bien c'est ça <laughs> c'est ça le véritable problème. <laughs> alors euh, kon da nga jàpp ne Mame Birame Wathie mesures nga xamante ne njiitu wax nag ne moom la ñuy jël euh, dafay mel ni rek mesures yi mu jël lu jëm si baisse lu yooyu nga xam du mujj fenn. tout à fait xam nga mooy li ma la wax sànq parce que bu doon ñoom li ñu doon wax taxaw na peut-être que lii dañ ko doon anticiper doon nañu def de sorte que ndox mi bu ñëwee dina am foo xamante ni dina fa mën a jaar pour dem directement mais peut-être ñoom euh, mais sa prévision bu demee ci xëy na lu muy taw cent millimètres lay doon mu jeex mais mais loolu c'est des prévisions yoo xamante ni ça ne tient absolument su su su rien du tout mm-hmm. un état ça ne fonctionne pas comme ça yow bu nekkee da nga engagé de grands travaux mais loolu day woon quelque part sax euh, euh, ñeneen ñi nga xamante ni nekkuñu Sénégal di gis ces images là il se pose des questions dañuy jàpp ne mais ñi euh, ban ban xam-xam la am parce que yow bu nekkee da nga yëkkati lu mel ni terre nga nga jël une ville comme Rufisque nga xaaj ko ci digg bi mu leer la ne ne am na ay canaux évacuation d'eau yoo xamante ni ñoo daan déverser géej gi mm. nga stoppé loolu mais tu dois te poser la question ndox mi bu ñëwee léegi fan lay jaar mhm. mais pour man loolu c'est tellement terre à terre ñeneen ñi bu ñu koy gis duñ ci ree c'est parce que véritablement nos gouvernants ñoo incapables. par rapport à la population ak li nga xamante moom mooy xew dañuy gis les grands travaux euh, souvent dañ koy liggéey deux ans trois ans euh, ndox bi bu taawee day defar ko maanaam euh, tali yi day xar wala travaux yooyu daal di indi ndox si biir kër yi est-ce que askan ñoom waruñ jóg bu dee day jar sax porter plainte pour ñi def travaux yi ñooñu est waruñ def moom devant la justice. bien sûr tout à fait mais xam nga ah, dans tous les cas population yi moom lenn la ñu mun mooy. balaa ñoo génn si mbedd mi sax mooy as ndox mi génn seen kër xuus ba ba jàll balaa ngaa ñëw si télé bi je pense que ne loolu mooy déjà les premières priorités mhm. te période bi ñuy wax nii ñoom ñu ngi si ñoom ñu ngi si loolu ku nekk di jéem mais xam nga boo ñëwee Dakar une ville comme dakaar nga jël l'essentiel des structures nga basé leen au en centre ville comme ñi nga xamante ni dañu war a xëy ñu si bëri ay marché Sandaga et tout ça ville la nekk côté boobu la ñu jëm mais mënuloo débrouiller wu de sorte que euh, la circulation qui doit être le minimum garanti. Mm-hmm. dans un état qui se respecte mënuloo ko assurer. donc ça devient scandaleux. d'accord Mame Birame euh, temps bi ñu desee bëriwul waaye euh, faw ñu ñambaas ci li nga xam ne moo jës ci wàllu politique mooy euh, jéem a natt statut bu chef de l'opposition pour yow en tant que analyste li nga gis kan moo ko war a incarner. xam nga. bërki démb dañu poser la question au niveau euh, de la rédaction de Walf Quotidien mm-hmm. man ma position à été que comme la France boo demee foofu euh, bien vrai que Mélenchon am na groupe parlementaire mais c'est Marine Le Pen mooy gën a tenir tête boo seetloo sax européens yi ñu weesu moo mm-hmm. gagné. Mm-hmm. donc euh, foofu noonu système présidentiel la amul kenn koo xamante ni mooy incarné mu la tête de l'opposition au Sénégal également je pense que c'est une question impertinente boo xamante ni elle ne doit même pas être posée mhm. maintenant bu nekkee ne on est forcé d'y répondre mhm. <laughs> war nañu trouver un chef de l'opposition maintenant question bi mooy lan mooy nekk baromètre bi pour mesurer euh, les capacités des uns et des autres ndax day nekk élection législative wala day nekk élection euh, présidentielle mhm. bu nekkee élection euh, comment dire législative kan moo koy ji nekk euh, parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. kan moo ko jiite le président Abdoulaye Wade il n'est pas actif politique politiquement à bof mm-hmm. je il n'occupe pas de poste de responsabilité je veux dire mm-hmm. n'est-ce pas donc mu nekk question bu nekkee da nga xool la dernière présidentielle nga ne c'est Idrissa Seck n'est-ce pas Idrissa Seck je me dis que après la présidentielle le soumis boobu opposition tegee ko ndale toog nekk citoyen ordinaire comme tout le monde. Mhm. kooku donc day jafe pour nga jox ko euh, mu jiite opposition bi. voilà donc mu euh, doonoon euh, Mame Birame wàcc analyse bi nga xam ne def na ko ci revue actualité wu semaine bi yëpp léegi léegi ñu daal di jàll ci rubrique yi ñu dese vu du lu koy dooree. Assane kon mu mel ni mbiru institution Sainte Jeanne d'Arc la ñuy waxtaanee ci vue net. Euh, ndaxte tey jii la ndaw ñi nga xam ñoom lañu jàkkoon muy xale yooyu nga xam dañoo muuru daal di delluwaat ci seen i classe waaye nag ay fulaar lañ leen jox fulaar yoo xamante ni euh, dinañ ko gis léegi à l'écran fulaar yu école moom moo ko confectionné. def si ay dimension bi nga xam moom moo ko doy. alors waaye tamit leneen loo xamante ni dañ ko si euh, mën a nemmeeku moom mooy ngir at bii rek la. Mhm. atum 2019 2020 donc at bii di ñëw c'est encore interdit ndaxte lijjanteeguñ problème boobu. maanaam dañoo renvoyer rek déjà euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy internautes yi ñi ngi koy jàngatee noonu di wax ni euh, état bi yaakaar na ni ñenn si internautes yi ñoom jàpp nañ dafa feewul par rapport à ça ndaxte lijjantiwuñ problème bi ni mu waree dañoo plié wu la volonté euh, de l' bi nga xamante ne moom moo imposé am ne nag li dérogation la def boo xamante pour temps bi la nga xamante ni année scolaire bi li des si année scolaire bi waaye ne mooy interdiction boobu ñu jëmoon muy mbir moo xamante ne nag jur na coow lu metti si internet bi docteur Mame ci fulaar boobu ak décision bi waaw xam nga man moom dama jàpp ne problème bu ñu réglé wul la problème bu ñu repoussé la mhm. problème bu ñu repoussé la maanaam au lieu que ñu discuter ci bon bonne fois pour toutes wax ne école bi fii biir Sénégal la sunu loi lii la wax nii ngay def ñu régler question bi définitivement léegi dañ koy def nu mu turati comme li tubaab di wax bricoler pour que après année bii di ñëw mu nekkaat beneen discussion au Sénégal comme que ñun duñ teel discussion <laughs> alors muy ay kàddu yoo xamante ni méngoo ak kàddu internet bi ñuy njëkk a commentaire am muy euh, Moustapha Diakhaté di membre APR nekk it euh, nekkoon euh, député jiite woon groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar li muy wax moom mooy interdiction bi ñu amal ci voile bi si institution Sainte Jeanne ngir at bii jëw muy ab décision boo xamante ne ndogal buy daal di salfaañe ak ak yelleefu réew mi waaye tamit di salfaañe li nga xamante moom mooy dal ak tey gi nga xamante ne moom lañ xam fii si Sénégal ndaxte école bi dafa war tënku ci projet wu éducatif au Sénégal nga mhm. xamante ni euh, constitution bi moo ko wax ak euh, loi d'orientation bu 91 2000 91 22 du 30 euh, janvier 1991 comme ni ñu ko bindee ak ministre bi ni mu ko waxee woon si weeru mai 3 bo le 3 mai noonu la ko waroon taxawee waaye nag bu ñu gisee ni tey nguur gi dellu na ginnaaw daanaka ruus du lay doon ci mbir mu ni mel mm. muy wax ni rek ñoom nguur gi école bi ñoom ñoo war a dellu ginnaaw waaye du nguur gi foofu sax négociation war fa woon am naan lii nga war a def lii nga war a def bu fekkee ko bëgg nga def ko boo ko bëggul ñu daal di jëlee ko daal di koy placé sous tutelle euh, administration provisoire moom noonu la ko euh, tuddee mm-hmm. ngir daal di wéyal mbir mi même bu jaree sax ñu daal di koy euh, tëj Lati Leyti Ndiaye moom it commenté na ne à titre dérogatoire loolu nag moom mooy kaddu bi nga xamante ni moom moo ko si jaaxal ndaxte est-ce que sax proposition bi ci école bi la jógee dafa yaakaar dama jàpp ni sax état bi moom moo toog daal di négocier mbir moomu ngir ñu mën a egg ci lu mel ndaxte naka la nguur di toogee yi ak ki nga xamante moom moo ko jiite moom moo ko yilif euh, doon na mbir moo xamante ne euh, kenn mënu ko euh, nangu ndaxte kilifa da ngay doxal li nga xamante ni moom mooy ca autorité kii di layti di ko wax dëgg république tamit daa am noo xamante ne noonu lay doxee ndaxte citoyens yi dañuy soumettre aussi décision yi nga xamante ni moom moo jóge si autorité yi bu fekkee jaar na si yoon te yaakaar naa ne lii loolu la li yoon wax beneen internet commenté na jëmale ko si mbir mu nekk nag day jar sax ñu bi wala sax ñu delloo ko France bi mu ko fay samp ñoom doxal li ñuy bëgg ndax li ñuy doxal loi la boo xamante ne du loi Sénégal waaye loi euh, bu nekk loi euh, tugal euh, Salif Thiam moom it commenté na jëmale ko si mbir bi ne nag ñii dañuy mbubboo laïcité yenn lobby yu nekk France ngir jëfandikoo yenn ay pion yu nekk ci réew mu moo xam ñu bokk si wàllum politique ñu bokk si wàllum institution yi wala ONG yi te tamit doon ay doomu Sénégal jëfandikoo leen ngir jaxase li nga xamante ne moom mooy réew mi ko ci yoon wala si suñu histoire wala li nga xamante ne moom mooy suñu aada ak suñu cosaan cosaan ngir gën ñoo mën a euh, teg yoxo muy mbir moo xamante ne nag euh, suñu irresponsabilité maanaam suñu ñàkk war euh, warmal suñu bopp moom moo tax ñu daal di egg foofu ñun nag ñoom ñoo si war a jóg ndaxte député français yi ñoom ñoo daal di voté loi boo xamante ne dañ ko tippee si aada ak aada wu France kon nag suñuy député bu ñuy tëgg ay loi dañ koy tënk si suñuy aada muy mbir moo xamante ni loolu la ñuy xaar si ñoom kii nag di Babacar Thiandoum ne ministre bi ñuy xaar de bu leen sax sonal seen bopp ndax du def lenn ndax ko xaatim te moo koy euh, jëlee euh, institution d' si décision bi mu nga koy euh, Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax léegi léegi ñu ubbi xët gi ci des bokk na ci ëttu yéenekaay Afrique yi xëy fasal dooree ko ci li nga xam ne ni moom moo di site en ligne yi nekk ci réew mi. ci ni kay denduk Afrique yi dañu koy dooree sunu réew ak nettali point com la ñu fësal di mbiru institution Sainte Jeanne xale yi nag dooraat nañu seen ëpp njàng niki ci alxames gi yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar comme ni ñu ko waxee woon ay bés gi ñu génn ci table négociation bi nga xam ne sekkoon nañu ko gi nettali point com ni dafa mel ni ñu leen neex képp la ko defee à la place du voile ñu nemmeeku ni daal di antu waaye ati 2020 ak ati 2021 waajuri yi dinañ uti pexe ko mooy ñu dindi voile bi ak li ca mën a leer ba leer yi na ñi nga xam ne ñoo di nguur gi xoolaat bu baax a baax seeni doxilin xëy na sax doxantu ca buntu école ba nemmeeku waajuru ndongo yi ànd ak seeni doom ngir ñu daal di dugg ci biir école ba ak itamit seeni fulaar comme moom dikkaat ci loi bi nga xam ne tënkoon nañu ko ngir daal di wàññi njëgub location bi ci réew mi mu mel ni loi yooyu ak loi yi ko demee ni wàññi njëgub électricité bi di courant dafa mel ni daanaka nañu ko tënkee woon noonu la ko bailleurs yi daal di sànnee furaas ndax ati 2012 la ko njiitu réew Macky Sall daal di tëral waaye boobaak léegi kenn matalewu ca lenn mu mel ni ne application bi dafay doon luy ànd ak faay mesure boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo di bailleurs yi maanaam ñi moom ay ay kër ak appartement di ko loué defuñ ca benn niki ati 2014 lu njiitu réew Macky Sall daal di koy promulgué ngir ñu daal di koy door muy wàññi gi ñu fas yéene wàññi location yi ci réew mi waaye furaas daal di xëddeem tey la location gën a cher ci Sénégal rawatina njëgub courant te moo ni ay amaan yu métti métti tegoon nañu ko ni képp koo xam ne jëfewoo loi bi ni mel ay daan dina tegu sab ndoon lu ko demee ni ñaar jàpp juróom benn weeru kaso ak amaan bu tollu ci benn million ak lu topp waaye itamit nga remboursé koppar ki nga xam ne moom moo di locataire bi waaye mu mel ni dige yooyu dige politique képp la ndax bañ ko defee ba tey naam am na loi ba ca tënku waaye ba tey ñi nga xam ne ñoo di bailleurs yi jafewuñu ko. Ziguinchor gannaaw ba ñu ko tëjee boobaak léegi weesu na at beneen mafia jóg na ngir daal di tijjiwaat. société bi nga xam ne day defar lépp lu jëm ci ay mbiru toxique fabrication de farine ak yi te chinois yi daa doon ko fa daanoon ko fa moomoon jamono ji askan wi nag doon amal a doxu ñaxtu di xamle ne société bi dañu teree dund ndax itamit day yàq seenub noy yi jamono jiile soo otul dinañ ko ubbiwaat gouverneur di génn Diouf daal dinaa sax dooral ab enquête publique te askan wi àddu ci 90 pour cent ne bëggatuñu gisaat fa société bi li mel promoteur chinois bi nag ñoom daan na noo installé wu taxaw teem a ngir ubbiwaat li nga xam ne moom moo di seen bërëbu liggéeykaay waaye askan wi ne day yàq seen environnement ba tax ne bugguñu benn yoon gis wa bërëb boobu le li ci gën a jéggi dayoo mooy ni sax ab enquête bu nu ko fësalee ngir xool ab tuyau d'évacuation boo xamante ni tëraloon nañu ko agent bu air maritime bi daal di koy tegub gët di xam le ne sax ay dégâts yu métti jot na ko faa def ñu jeexalee ko mbiri Algérie ak sunu naataango yi lu ñu xëyee di waa El Watan bokk na ci manifestation gi nga xam ne am na ci àjjuma gi bu ca biig nag ci alxames gi moo ca gënoon metti ndax ñaari doomi aadama ñàkk na seenu bakkeen chef d'état-major bu ANP di Ahmed Gaïd Salah daal di fas yéene tëj ci capitale bi ngir manifester yi daal di fay dakk buñ sukkandikoo ci ay kàddoom muy xam ne ñu ci bëri ci doxkatu ñaxtu yi dañuy daal di mujjee defub gang ngir defi ay njombe ay bés gi ñu génn nag gis nañ fi bu baax a baax fitna yi nga xam ne judd na fa tax di nationale di seen oto ak seen gànnaay taxaw temm ngir daal di dakkal képp koo xam ne bëgg ngaa ñaxtu ci mbeddu Alger yi rawatina di fa jàppanteeg ay woy der ndax saa su ne ay ñombe képp lay daal di indi. ëttu yéen kay dend ak Afrique yi sax moom mooy daal di ndar képpee euh, ñaareelu pàcc bu seen magazine bi lee di l'édition du ñu sant ko baax a baax gërëm ko moom mu ci doon àndal euh, Mame Birame Wathie ñu ngi euh, gërëm di la sant. Eh, jërëjëf merci bu baax a baax di sant yow itamit Assane ñu doon àndal ci vidéo net ak ci waxtaan wi. mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ci kanam tuuti ñu daal di ñëw yeggali la quatrième et dernière partie waaye en attendant dañuy dem beneen studio bi fekk fa Ramatoulaye Ba Diène moom mooy dikk yéen ci journalu 20h yi ci kanam ak